yow mi bëgg connexion internet pour def say live di connecté wu sa bureau connecté wu sa kër wala di def télétravail en ligne lépp woote gaaw commercial ci 77 259 12 12 wala ci 78 478 92 78 dina la assister conseil lu maa def luñ ma jooy dama jàllale xanaa lii dee nag bi nag mooy kawteef bi moom <laughs> soxna Mbodja Mbaye man sama jëkkër daal fu foo ne maanaam bu dee foowante di tëdd ci kaw lal di mëlañ mëlañ yéen a ma kanaxam a xam maanaam fulante gi daal moom mën na ko moom ngeen koy fulante rek nag nga koy nekkee waaye daal bu dara desul kóor gi dëpp ci gënd gi mënu la kóor gi di dugg ci gënd gi <laughs> waa lii nag maa jàmbale nag lii nag maa jàmbale nag waaye am foo kenn jéem a dëkk am mu am mu am kenn jéem a dëkk na lu koy mottali nag kat te la koy mottali moo ñu fa yóbbu déglu leen mu baax. ndax di ngeen di meet moom tarkaal moom waxi daal rek lay wax waaw parce que moom la may jooy ma di ko jàllale waaye góor ñi lan mooy seen dëkk dañoo mën a dëkk ci fulanteeku raayanteeku bokkante naan tubaab bi moom lañ ko def du ñu ay tubaab ay sénégalais lañ ay nit ñuul ñun moom suñu bu ko tubaab bëggee moom la ñun ñooy tubaab ñoo nekk Sénégal gii da ngaa a dëkk ci fóorante moo moo gudul jeex dina jeex say ween seey sa dënn wàcc nga doon jànq ba léegi ku ko mës a gis <laughs> soxla ma fóorante sa man eh lan fóorante mën da ñàkk ndax combat sax bala nga koo tëgg da ngay tuuroo say gàllaaj wër géew bi ñëw taxaw waaye lu ciy mujj combat bëre dóorante tipp tipp tipp tipp waaw songoo ndam ñëw ku gañe ku gañe yow la léegoon ma dëkk ci moom moom gurul jeex ni ko yëy si moom fu ne ma wokk ma ci gënn gi pour lan góor googu man mooy ban façon góor moom mooy ban façon góor eh gënn gi boo ci dëbbut fan la neex neex di jaar président Ibrahima te donc kenn da cee mën a dëkk plaisir bu laayante kese ku bokkante ku joxante non eh, xoolal bu leen ma wax loo ah non bu leen ma wax loo tamit barke Sëriñ Bamba et eh, bu leen ma wax loo waaye lii kenn mësu koo gis foonate daa may kenn doom dama a ndax fulante dafa may kenn doom est-ce que tax nga am doom bu doon loolu kon kon jànq jépp mën nañ ba jeex tàkka ah, ndax koo ci gis tàkkaale foonante na ba keneen jeex te sa yëgul tey dañoo xam ne seen bopp waaye fóonante la loo bind ci fóonante ñu liiral la ko dañoo fóonante fóonante ba seen duñu kaw si suuf mii seey ànd ak seeni bañ maase ci jànk ci sa yëgul laa de te ëmbuñu parce que fa lañ jëm dépassé wuñu ko kon fóonante kese daa mën a may doom bu leen sonal góor ñi na góor gi ñu dëpp ci gënn gi na góor gi ñu dëpp ci gënn gi mu mel fóonante ba seen yaram tàng ba saf-saf góor gi ñu dëpp ci gën gi nga riitale gënn gi ba mu mel ni dañoo xam jaagar-jaagar ci néeg dañoo xam takk fer dañoo xam taal cuuraay dañoo xam soo suñuy déguisement di def suñuy baax ah duñu ay tubaab ay sénégalais lañ mun yoo dëkk ci mu am mu am gudul jeex yéen tubaab bi lañ leen di gëm la suñu ko def ndax duñ ko jàmm ne pare kur ga day dëpp ci gën ko kon ñu am doom bi kon nu am doom bu kur gi dëpp ci gën gi lan la tubaab bi amee doom ngeen bëgg a jël dundu tubaab bu ko andi sénégalais di ko gëmloo seen jabar yi foo leen di daw génn cee mën a dëkk am na góor ñoo xam ne ñoo raw jànk seen ndaw ba tey mi ngi ak ñoom te am nañ jabar <laughs> barke Alaaji Fàllu Mbàkke ba tey jii ñoom versaguñu ñoom seen ndaw a ngi ci ñoom ndax fu nu romb fóonante dinañ la fóon a fóon fóon ba say nopp sax seey te guur gi di nëpp ci kër gi loolu kenn di ci bu leen ñu rey booy fóonante nga yemale ko ci ña nga takkagul te jànk jàpp bu dee loolu nga gëm waaye jabar ji nga takk andi ko ci biir kër gi mën a dëkk ci fóonante te mën a jéem a dëkk munu cee dëkk frotter tarkalla ba mu neex ba neex ba neex koom combat bi ba mbër mi léewtoo ba jaagar-jaagari ba sottoo yëpp et eh, lu ci des nag sëgg bëri nañ ko bëri nañ ko bëri mu doon yëg-yëg bànneex am ci plaisir am ci doom ju baax sosu ci judd na doon njaboot bu baax goo nangul baayam ba am ko yëg-yëg la frotter ka plaisir am di am fu muy yam am na fu mu yam kat da gis ko yaramam dàng ba yaramam dàng mu jug ko ci rëgëj boobu mënatu la dee boppam yaramam na ba ëpp di mënatu la maîtriser boppam mu jug ni ko ci rek ba pare toog di xool waaw moo tax ne flotte flotte du ñëpp la mën a satisfaire flotte bii du ñëpp la mën a satisfaire te kuy seene doo ko kal mukk na ci flotte kese mais ni ku yor koy koy génnal mais ni kuy gérer ko gel jabar ji nga takk ci biir kër gi teg ko fi dangaa mën a yem moom ci flotte kese góor ñi tam am na ñoo xamante ni kal la ñoom it dañ topp ba nga sës dañ lay téye ci biir sëy bi di la torturer du la bàyyi nga nekk liberté à l'aise du la bàyyi mukk nga nekk à l'aise nguñum nguñum kenn mënu cee dëkk parce que làmmañu mag wi dépassé ba mel ni làmmañu ndaw du ma ko nangu du ma ko nangu dee leen bëggalante ci biir frotté bu demee ba yaram tàng ba yaram tàng na kuur gi dëbb ci gënn gi tucc tuccal ko tucc tuccal ko tucc tuccal ko ba gënn gi xóot tucc tuccal ko ba gënn gi ni la waa yow lii lan la nii dan ko bànneex ak yëg-yëg jabar la sa jabar yaa ko moom amul sens interdit bu leen dofloo nit ñi ba tey li ma leen waxoon ci vidéo bi suñu doomi gàlluñu leen furata doom andiw kese andiwul ay doom ci biir kër furata kese joxuñu baat neex loo raay raay loo wokkante wokkante loo raay raay fu na nga bëma fu fu na nga ñondi fa e xoolal bu gën gi dugg ci guur gi bu dëbbul ci gën gi yëg-yëg bi day des <laughs> allahu akbar e xoolal furata kese mënul tax góor di yëg boppam dala saagay ndey wala mu du la xoj ngay fuddoog wala mu lay mbëkk ka mbéj fulaata kese mënu la faa yóbbu xam nga lu koy waral pour gi dëbb ci kënd gi muy sa leeru Sénégal njaay yëpp di la dégg nga xam ne am nga ndam yow amante nga ndam ndax liggéey dalaa dóor nga fayu kur ko dëbb gën nga mbégte mi ñëw muy neex <laughs> waaw waaw tey boo jambaay tey boo jambaay bul noppi de boo jambaay li ngay wax dara du ko dindi man bañ am na ñoo xam ne ay tubaab bi ñuul lañ ay tubaab bi ñuul lañ dañuy ñëw dagg fekk Mbodia Mbaye bi nga xamante ni moom ndeysaan toog ci kër gi seere kër gi rek lay dund moom mbégte mi nga bëgg nag njëkk yow andi ko dund tubaab boo xam da koy réeral jooyam gépp lay jaar lu mu la ko sem pas non non sexe kese du affaire bi quoi sexe bi kese eh sexe bi kese du affaire bi waaye moo téye affaire bi de sexe bi kese sëy bi mais sexe bi moo téye affaire bi jëlee fi sëy bi yëpp rek seet yow yow ku góor gi na sab sexe si dem lu tax temps yi fi temps fi xewal yow yóbbu bagage góor am dem nga topp ci fu ne nga daw di yuuxu wuy samay bagage wuy ko ñaata nit leen dee kon bagage mooy lépp bagage mooy lépp ndax bañ fi xewalee ku nuyu ay bagage am dem ñëpp a topp ci am ah. samay bagage samay bagage ba bagage jaaw kon nag nañ gérer lii kon bagage mooy lépp loolu moo ñu yóbbu seen lay leer waaye sexe dong du affaire bi sexe dong du affaire bi jëlal sexe nga génn ko sëy bi nga xool ana sëy bi ñun tamit toog seen kër di bi de yóbbu ñu seen kër yi de tëdd di nelaw lekk ak naan yaa ngi suñu kër ndey ak kër bàyyi góor moo ñu yóbbu seen kër yi yàlla daganal ñu jël jigéen yóbbu ko ci kër góor ni ko yéen ñaar nekk leen ci doom juddu yàlla kontaan ci yéen ndox loolu la daganal kon léegi la mooy seen problème dara ñu bàyyi ñuy bégee fulata kese kenn mënu cee dëkk du nguñu nguñu meeka ngañam ngañam yi ba say ngaam bi mitti ne kuur gi dëbb ci gënn gi yaa mën yaa ëpp doole yaay góor gu baax tarkal la doo ma xaar ci dara dóor fayu nay saf sàpp tey mitti ab jeg day tagal rawatina góor na saf sàpp lislaam dagaran la ko góor ak jigéen la ko jëkkër ak jabar sëy ko ba mu neex ab jeg day tagal sa jëkkër la defal la la saf yow mi bëgg connexion internet pour def say live wala di connecté wu sa bureau connecté wu sa kër wala di def télétravail en ligne lépp woote gaaw Diouf commercial ci 77 259 12 12 wala ci 78 478 92 78 dina la assister conseiller